yéen ñëpp ci seen tur ak sant monsieur le ministre des forces armées ak sa délégation maa ngi leen di nuyu monsieur le ministre des forces armées effectivement ci commission laajoon naa la lan la armée française di def Sénégal rapport bi ñëwaat si ne ci lu jëm ci teewaayu l'armée française ci suufu Sénégal ministre bi nee na armée bu Sénégal am na bépp jumtuwaay ngir aar Sénégal ci gàttal ci wàllu jumtuwaay soxlawul benn l'armée waaye nag dafa fekk rek ne dañoo xaatim ak yeneen réew ay accords yoo xam ne dañuy def exercice militaire ñun ak ñoom avec les forces armées d'autres pays. Alors, monsieur le ministre des Forces armées, monsieur Sidiki Kaba, xanaa 1960 ba 2022 élève bu duggoon école 1960 di def exercice di def exercice di def exercice ba 1970 ba 1980 ba 1990 ba 19 ba 2000 ba 2010 ba 2020 ba 2022 xanaa élève bi lu mu nul nul nul nul élève boobu war na fer war na mën kon armée française lu mu fi defaat wala monsieur le ministre des forces armées da nga bëgg a wax ne élève bi ñuy woowee Sénégal te muy def exercice militaire ak armée française depuis 1960 dafa xamul dara dafa nul ndax loolu nga bugg a wax ndaxte wax ci mooy exercice pendant plus de 60 ans xanaa war nga mokkal. ak lan moo tax ñu koy defee Sénégal rek lu tax yenn saay du ñu dem defi foofu monsieur le ministre nañu bàyyi tappale tappale bi xam nga mooy lan accord yi amoon avant indépendance te mu waxoon ne base militaire française day am fii ci réew yi France colonisé woon accord yi amoon avant indépendance te mu waxoon ne suñu koppar ñun mooy franc fa accord yi fi amoon avant indépendance da doon wax ne suñu langue officielle de travail c'est le français ak ñoom seen accord yooyu bi ñu jëlee indépendance dindi wuñ ko président Ablaye wàdd moo ci def dara tàccu leen ko bu baax a baax Macky Sall li fi président Ablaye Wade génne woon ci armée française mu indiwaat ko ndaxte président Macky Sall mooy surga tubaab yi rawatina tubaab yi ñuy woowee français armée française daf fi war a jóge waaw ñun ñoo wax pour la souveraineté monétaire France dégage amuñu ci benn kersa dañoo war a moom suñu bopp ci wàllu koppar France warul nekk ci suñu ay conseil d'administration ak ñoom seen waaye ñun ñoo si dolli ne pour la souveraineté du Sénégal armée française dégage armée française hors du Sénégal armée française allez-vous-en en réalité yéen gëmu leen soldats sénégalais yi ñun ñii di wax armée française allez-vous-en ñun ñoo gëm solda sénégalais yi ñun ñoo am kóolute ci ñoom loolu mooy dëgg parce que bu ngeen amoon kóolute ci solda sénégalais yi armée française du fi def dara daf fiy jóge ñun ñoo gëm armée sénégalaise moo tax j'en profite pour rendre un hommage à ces hommes et à ces femmes de tenue qui nous protègent tous qui protègent le Sénégal ñu ñuy aar oui nous avons foi en vous c'est une des raisons pour lesquelles ñu ne armée française ne fi jóge amul base armée sénégalaise France amul base armée sénégalaise États-Unis donc France n'a rien à faire ici lu dul ñaari mbir protéger ay président yoo xam ne day ñëw dëddu seen askan di sàmm seen njëriñ ñoom France loolu mooy wax ci aar l'accès à nos ressources naturelles fexe ba suñuy réew nekk ñoom seen marché prioritaire loolu la armée française di def fii waaye tamit di déparé suñu réew di dem bombarder feneen ak feneen armée française xale yu judduwul sax xam nañ ne ñoom ñooy jàppale jihadistes yi ci Mali ak ci Burkina ñëpp xam nañ ko ñun kañ la ñuy fer armée française yebuñu suñu njiite la ñu yeb ñun ñëpp africain xam nañ ne armée française mooy jàppale jihadistes yi mooy jàppale jihadistes yi Mali mooy jàppale jihadistes yi Burkina on n'a rien à faire avec une armée d'occupation avec une armée qui va bombarder en Libye et en Irak qui va bombarder Gbagbo en Côte d'Ivoire c'est une armée néocoloniale daf fi war a jógee monsieur le ministre fii laa waxoon ne manifestation yu mujj yi amoon Ziguinchor te ma fekkee ko ñu jàpp si ay doomu Sénégal foofu ca Ziguinchor gendarmerie bu neema dafa jàpp ay xale toj seen bopp est-ce que loolu mooy n'ayez pas la main tremblante di toj bopp ay doomu Sénégal yoo xam ne dañoo ñëw manifestation indi wuñu xeer indi wuñu dara ñu toj seen bopp téye leen juróomi fan ci biir gendarmerie bi ils n'ont pas été soignés ils ont été soignés devant moi à la prison de Ziguinchor bi ñu egsee ci biir kaso bi seen bopp di génnee dëtt loolu c'est de la torture mais quelle triste fin monsieur Sidiki Kaba quelle triste fin d'avoir dirigé la Fédération internationale des droits humains et de présider un ministre boo xam ne ministère boo xam ne il y a des gendarmes qui pratiquent la torture quelle triste fin li li gars yi di wax Macky Sall day suul ndaanaan ndaxte nekkoon nga ndaanaan bi nga nekk bi ngay jiite FIDH nous récusons nous refusons l'application de la torture qui est appliquée ici au Sénégal notamment par la gendarmerie et par certains agents de la police en violation des conventions internationales yi nga xam ne Sénégal da ko xaatim je voudrais rendre un hommage au capitaine Sané capitaine Sané mooy ki nga xam ne ndeysaan yàlla na ko yàlla yërëm xaree ko aljana moo dee Koumpentoum di aar xaalis bu nekk ci poste moo tax sàcckat yi war nañ xoolaat seen bopp capitaine Sané dee bi muy aar xaalisu post ngeen ci yéen di ko sàcc di ko tojee capitaine Sané. La parole est à notre collègue Ahmed Aïdara. Ahmed Aïdara. Il est